asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokku taalibe yi mbokku jullit yi sëñ Demba ñu ngi lay nuyu di la ziar ñu gis ñu gis taxawaay bu am solo boo xam ne am nga ko ci màggal gi chaque année rek nga am taxawaay bu rëy boo xam ne da koy taxaw ci màggalu Ramatoul Massary yi ban yëg-yëg nga ci am te yëg ne ndax sëñ Tuubaa ci boppam yu hmm. doo dégg ne dégg na man kenn ndaam daa mus yoo am yu ko yoo may ne may commencé ànd ba am njëg ne maa sa am njëg jënd na ko hmm. sëñ Tuubaa na nga ko santee boom bi hmm. di wax jërëjëf Sëñ Tuubaa bu waxu gaay woo ndax Sëñ Tuubaa ci boppam bind na bàyyi fi jëfee yi ñu gis mhm. wax yi ñu dégg mhm. wax yi ñu yéen mhm. Sëñ Tuubaa nee na uh-huh. bañ Tuubaa doo leen jaamu yàlla bàyyi bi ci ci ay ndab ci ay ci ay xëwal di yi ñu ñu ndax Sëñ